mbir mu yéeme moo daal di xew démb fi nga xamante ni mooy ci diwaanu lagrose ndongo yi démb bi nga xamante ni nii rek pare nañu li nga xamante ni mooy seen épreuve physique yi amoon na ci ñoom ñoo xamante ni dañu demoon ci place bu Lac ngir daal di sangu ñeenti ci ñoom nag daal di fay jaaree rek daal di ñàkk seen bakkan ñaar ñi gis nañ leen kenn ki ci ay xibaar yoo xamante ni jot nañ ko daal di nañ koy gis tey jii ci suba. ginnaaw ay jéego yoo xamante ni waa gendarmerie bu ñàgg ak waa sapeur pompier dox nañ ko kii di commandant John nag ubbi na ci ab enquête. ngir ñu mën a xam mbir mi ana lan mooy li ko